ausbillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inni ibaadi laysa lak alayhim sultaan wala wu yaxsimako mina naas yaa allah barke borom tubaa eh, bokki jullit yi bokki taalibe yi bi ñu jiitale ci siyaar bi Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg tànd ku wér di siyaare sunu jawriñ sëñ Afiya Busaal imaam di xam leen nag tey sunu jataay bii buñ ko gisee ñoo ngi toog fii ci jumaay Touba toog sunu kilifa gi nga xam ne sëriñ Abdul nga xam ne kenn ku ne xam na taxawaayam xam ko ci liggéeyu daayira bii nga xam muy mooy mu Muxaddamaatul Xidma rawatina ci diaspora bi ñu di ko ànd ci wàllu bitim réew ànd kook tam daayira bépp daayira bi nag bu ñu tuddee sëñ Afia sëñ Abdoulaat Muxtaar dugg na sëñ Abdoulaat Mutalib sëñ Abdoulaat Maam Asta eh, ak mboolem waa xidma yëpp mu mel ne nag nii rek lañ ko daan defee ñu teew fi tey ji indi fi addi bàyyi ko Espagne eh, addi naka jekk Espagne moom jumaa ji moom euh, min nañ kook Espagne euh, ndax si ñaafe day wax ne euh, ñoom Espagne tax na leen a ñeme ba bu wàccaay wi ñëwee xam na ne buñ ñëwee rek lépp loo xam ne rek seen yaakaar nga ca woon ci nañ ko séentoo noonu la ñuy ñëwee tey nag indi nañ fi deux millions CFA yoo xam ne moo bàyyi ko Espagne jébbal ko sëñ bu Bousso ci turu sëñ Abdoul Ahad Bousso Thierno mu teew fi teewaayub sëriñ Yaafiya Buso euh, loolu nag buñ ko waxee euh, buñ buñ waxee buñ waxee àddee jooju euh, danañ tudd nag jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk Espagne buñ ci tuddee coordonnateur général teg ko ci loxo muy sëñ Maam Daam Lo mu Cheikh Moustapha Al Karim tudd sëñ président fédération sëñ Bakke Ndiaye ak El Hadj Abdou Ndiaye ak sëñ Adi Touré sëñ Mor Tambidou sëñ Abdou day mel ne ñëpp dugg nañ ci biir kon nag ñoo ngi xamal waa Espagne yépp ne seen addi ji ngeen tàmbalee ci liggéey bi mu toll ci 2 million indi nañ ko bu ñu xoolee la ci njëkkoon a jiitu la ci njëkkoon jiitu mooy euh, maanaam addi ji bàyyi ko Tenerife Alaaji Abdu yaa indi woon ko ànd ko coordonnateur sëñ Gañ Kama ak sëñ ab du Mbaye mi nga xam moo nekk Toroweex loolu bu ñu ko xoolee toll na ci 524000 la ca la ko mottali ba mat 2 million mooy li mbooloo mi dajale. ñuy soññee nag di wax ne kon liggéey bi tam des na euh, nañ ko daan defee rek ñi daan yëngu ci seen addi muy ñëw ci biir màggal gi ak ci ginnaaw màggal gi loolu tam ñoo ngi koy séentu ndax liggéey bu takkoo takku lañ fi fekk bi ñu egg see gis nañ ren entretien bi ak maintenance bi euh, ak mbooloo mu bari mi nga xam ne ñoo nekk ci biir jumaa ji te tey taxawu màggal gi euh, biñ ko xoolee sëñ Abdou Lahad Muxtaar sëñ Abdou Lahad Thierno dana ci ñëw xam leen ne dana dana sax leeral lim boobu mbooloo mu baree bari bari ñoo fi nekk te daayira di añal di leen taxaw di leen di leen di leen di leen defal lép boole koog la jiitu muy entretien yi kon daal ñoo ngi wax ci turu waa Espagne euh, ñun nag ñoo ngi yëkkati suñu kàddu cant suñu kàddu ngërëm tegaar ko ci loxol coordonnateur général sëñ Maam Dame loo mu jàllale ko ci mbooleem ku nekk ci biir Espagne yëpp ak jëwriñ sëñ Adi mi nga xam ne ñoo doon collecté liggéey bi. li ci ëpp di jaar ci numéro Wave-am ñëw ak sëñ Fallou Dia mi nga xam ne coordonnateur la mi ngi fi kon loolu lañ doon indi ñu xam ne tey indi nañ ko fii ci bisum ci màggaluk Seexuna si Ahmadal Xadim ki di jëfal waa diaspora yëpp nag diggante Amérique ak Europe ak Asie Afrique euh, buñ ko buñ buñ ko waxee rek ñëpp dugg na ci ñoom taxawaay waa fondation Muxaddamatul Xidma Amérique moom itam ñu egsee yëg yëgal nañu ko ak waa Italie seen taxawaay ndax it ñoom itam liggéey yu mag liggéey nañ ko Euh, sëñ Abdou Lahat kon kàddu yooyu lañ doon indi euh, di ko indi ci turu waa Espagne yëpp euh, buñ la fi fekkee nag ñun suñ xel gën naa dal ndax yow it li ngay def ci jaspora bi tam nekk ci tam jëm ci liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma dañ koy ànd ñun ñëpp teg nañ ci suñ bët waaw doo ci tàyyi guddi ak bëccëg fenn fu ci ne dem nga fa wàcc fa waxtaanak ñoom ci diine waxtaan ak ñoom ci ci li nga xam ne moom nga gën a moom nga yor muy culturel bi ci fi ñu war a dëgg suñ tànk waxtaan ak ñun tam ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey jumaa ji ba tey kenn ku ne xam ne lu ca yokk itam gis nañ ne jéego yooyu bokk na ci la tax mu gën a yokk kon nag yàlla yàlla dëgëral la kuddal saw fan ba lépp loo yéene ci liggéey bi yàlla defal la ko tañ ànd ko ak waa daayira bi yëpp nag kon nag loolu rek lañ doon indi yàlla na suñ borom yokkal ñëpp tawféex nag fàttiwoon kenn nag képp ku ne diaspora daal noo la fi teewal noo ngi ñaan ci doole sëñ Tuubaa daal kenn ku ne nga yokk ba yëkku ba yaakaar ji nga xam ne waa daari bi bàyyi nañ ñu ko xel ci biir liggéey bi Cheikh naa Cheikh Ahmadal Xadim bi ñu am ci gàttanum sëriñ bi te sëriñ bi yàgg fi loolu taana ko wér auzu billahi min asaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen balu aq di leen baal di siyaare ñëpp di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te ko ñi ngi leen di nuyu tamit euh, ci turu Serigne bu so mi nga xam ne moo jiite daaira Muxaddamatul Xidma ak ci turu membre daaira Muxaddamatul Xidma yëpp di am mbégte bu baax a baax a baax di dalal sunu mbokk mi suñu mbokkum taalibe mi Serigne san Diop di sunu xarit tamit di jëwrin ju mat jëwrin wax dëgg yàlla ci liggéeyu daaira Muxaddamatul Xidma di ci taxaw taxawaay yu rëy rëy yoo xam ne mat naa ci seere bu baax a baax a baax ndax guddi bëccëg ak lu mën a xew dagg na ay liggéeyam yu koy mën a amal njariñ bu baax bàyyi ay njabootam saa su nekk di daw ay kilomètres ay réewi réew di jëli avion fu nekk ñu ànd fa te dara ñoru ko ci loolu lu dul jumaa ji am daw feex rek am tay muy jumaa ji am lim xolama sedd mooy jumaa ji am lim bëgg ci wànn fànn gu nekk moo xam matériel la moo xam social la moo xam lu mën a loolu moom mu ne su ko cee ñàkk seere ci tàmbali bi jaajëfal ko ñaanal ko it ci loolu ndax ñun xam nañ ci lu bëree bëree bari suñu borom kàttanal ko may ko wér e, yokk ak manam ak wërsëgam ndax ab jumtuwaay la boo xam ne jumtuwaayu sëriñ bi la kon nag jumtuwaay moom dañ koy ñaanal mu am cëf ka loolu moom ñu ngi koy seere bu baax a baax a baax a baax ci daraja yi weer wu tedd bi ak safar ak borom Tuubaa kon sëñ Asan yow la ñuy tàmbalee cant gi ak jaajëfal gi ak ñaan gi ci yow teew nañ fii maak sëriñ Abdul Ahad Bousso mu sëriñ Afiya mi nga xam ne moom moo nekk ci kaatibul idaari yor bureau bi ba noppi bokk ci ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu koom ci daayira bi ngir seere jëf ju réy ji nga xam ne waa Espagne jëfati nañ ko mu aju ci waajtaayu màggal gi ngeen indi fii deux millions CFA ngir mu jëm ci waajtaayu màggal gi ci wàllu entretien bi te mu yàgg lool rek kon yàlla na gën a yàgg te gën a man kon ñi ngi seere ci membre yi nga xam ne ñoo participer ci liggéeyu màggal gi ne seen jëf ji agsi na kon ci biir loolu sëñ Assane ñu yóbbante la nuyoo ci jëwrini Espagne yi tàmbalee ko ci kilifa ga mag sëñ magu magum taalibe ma nga xam ne moom it du tàyyi Alaaji Abdu Njaay ñëw na fii yàggut ànd ak sëriñ Ngagne Kama ñu ngi koy nuyu te di ko sant di ko ñaanal di nuyu tamit sëriñ Adi Touré jëwrin sëriñ Adi Touré waaw ku fonk jumaa ji te fonk te bëgg lu baax waaw euh, bu yàggut rek laa jógee Palma nga xam ne bagages yooyu ñu doon laaj ci sama kanam la laaje àddiyee ngir mu jëm ci matériel boobu waroon a jëm si fii muy garab yi doon war a jóge Italie ngir ñëw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal wér moomit waaw ndax jëwriñ la ju mat jëwriñ di nuyu tamit président fédération Serigne Mbacke Ndiaye moom it di ko sant ci taxawaayam di nuyu sëriñ Abdou Sare mi nga xam ne mooy sa jëwriñu dëkk moom it ku baax la te bëgg lu baax te fonk liggéey bi lool. di nuyu sëriñ daam loo Serigne daam xari laay wax mu Ibisa ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di ko sant ci taxawaayam di ko fonk liggéey bi. ak sëriñ Fallou Dia euh, sëñ Modou Guèye euh, dama ko bëgg a mujje di nuyu sëriñ euh, sëñ sëñ Abdou kii sëñ Abdou Cissé Sambou sëñ Saliou Guèye sëñ Ablaye Diop Madrid waaye di nuyu sëriñ Barandooy jëwrin waaw sëñ Ablaye Diop Madrid moom it ku mat taxaw la te te ñaanal ko ndax moo it ku am ay taxawaay la ci liggéey bi ñu ngi koy nuyu bu baax su ma toppee ci lim jëwriñ yi damay fàtte kenn waaye ñu mujjee ki nga xam ne nag mooy le coordonnateur général muy Baye daam loo mu Cheikh mu safar Karim di ko xam ne moom it ku attana sonn ci liggéey bi la di ci taxaw taxawaay bu rëy rëy rëy ñu ngi koy nuyu bu baax ba ci yeey sëñ Malick Diang ñoom ñëpp ak euh, sëñ Mbacke Cissé mi jiite daayira ak yooyu ñoom ñëpp daal fàttewuñ kenn ba ci waa Bilbao ñu ngi nuyu sëriñ euh, Fallou Dia sëñ Mamadou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci weeru tedd wi su ko defee jëwrin yooyu ñu tudd ñëpp ñu ngi leen di sant ci turu daayira bi te di leen ñaanal ndax jëf yi yàgg na te tegu na ci Pastef kon ñu ngi ñaan sunu borom mu fay leen te taxawu leen euh, liggéey bi nga xam ne nag ci lañ ko indi muy liggéeyu jumaa ji euh, di di di waajtaayu màggal gi aajo nañu leeral tuuti taxawaay yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def ngir jëwrin yi nga xam ne ñu ngi ciy yónnee addiyee mën a xam fi mu jëm xam ne jëm na fu ko jar Euh, bi mu sukkandikoo ci wàllu waa finance Sëñ Abdou daaw ci màggal gi euh, budget bi mi ngi tolloon ci dix huit millions dix huit millions euh, ren ji jàpp naa ne dana ko ëpp ndax commission yi nga xam ne jot na ma xam seeni budget rek commission organisation yaakaar naa mat na quatorze millions sëñ la at te bokkut ak commission sociale et santé xam nga ne loolu day jël xaalis euh, commission culturelle gis nga exposition bi ñu def waajtaay bi moom it day jël xaalis bu bëri. ni ki noonu commission communication bi kon jàpp naa ne budget màggalu ren dana romb dix huit millions kon te première safar ba lee ba lañ tàmbalee woon entretien bi e, di di di def liggéey bu rëy nga xam ne lépp loo xam ne mooy pile bu fi yàqu wala ventilo wala lu mu mën a doon dañ koy sensé lépp lu fi yàqu dañ koy defaraat ak lu mën a doon loolu day jël xaalis bu bari ñu doog a ñëw nag ci magal gi une semaine magal gi sa organisation 1700 personnes lañ dajale lañ am ñoo xam ne ñu ngi fi di renouveler te 24 sur 24 di liggéey te ñooñu dañuy bëgg buñ nekkee fii ci magal gi ñu leen di berndeel comme bernde yu mel ne buñ toogoon seeni kër ci fànn gu nekk kon loolu kon laaj na bit si ndax magal gi lépp lu ñuy aaye ci penc mi dañ ko war te dañoo war a organiser rang yi war taxawu taxaw julli gi war a def lu nekk ci biir jumaa ji ak ci biti loolu di liggéey bu rëy rëy kon loolu laaj na ay taxawaay yu rëy rëy kon moo tax lii ngeen indi participer ko ci ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy dañuy participer ci liggéey bi tudd nga ko léegi muy waa fondation Muqaddimatul Xidma Amérique nga xam ne ñoom mm, tamit addi ju am solo indi nañ ko indi nañ ko fii ci ci ci ci ci koor gi nga xam ne dana jege 3 millions loolu di liggéey bu rëy rëy ak ñeneen ñi nga xam ne Eh, mel ne Uruguay ñëwoon nañ fii waa itali dëkk yooyu yëpp waaye daal waa Espagne moom wax dëgg yàlla dañ leen di beral cant suñu asan di leen beral ak ñaan ndax ñoo wane yoon wi nag ñoo xàll yoon wi ñoo ko wane kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm dañaan ñaan suñu borom mu taxawuñu te taxawu leen te nangu liggéey bi ci daraje wax di xawaa ijil lazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu bi barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. كل بزار وفي سفر